ñiy jàppale Madické Niang si wàllu politique si Touba ñi ngi wéyal seen ay di dem si gox-goxaan yi soit ñuy def seen parrainage wala sax ñuy seeti militants yi waaye nag am na si ay yoo xamante ni dañuy taamu dem jëli ay militants yu bees yu nekkoon si yeneen parti si Touba Aliya forage baylaat am na ndaw su fa jóge ànd ak ay mbootaayam ñëw nag ngir jàppale maître Madické Niang loolee waral délégation bi ëmb ndaw yi di waa kër ma Madické Niang demoon ngir dalal ko waxtaan ak moom aussi si lu ñeel wàllu parrainage yi nu sumb. pour ñu bëgg jàppale maître Madické Niang te am nañ ci moom confiance bu mag looloo waral ñu woote mbootaay gii nii pour ñu fekk ñu jàppale ñu ñu ne ñu jàppale ndax taalibe Sëñ Tuubaa la. loolu daal moo nekk suñu yéene daal pour yóbbu ko élection daal fal ko président te coow li ñuy gis ci politiciens yi yëpp gisuñu ko ci moom amul benn tuuma boo xamante ne mas nañ koo teg ci moom looloo nga gën a waral ñu ànd ak moom ndaxte nit daal bu dëggoo rek day neex àndal te gis nañ ci moom daal confiance te am nañ ci moom yaakaar te ñu nit dinañ ko jox ñun li li nga xam ne sunu doole dinañ ko ko jox. ñoom ñii nag bàyyeekoo faneen ñëw ànd si ak Madické Niang yaakaar moo leen fi indi ba moo waral ñu ni confiance bi ñu am si moom jàpp nañu ni du dañ. di sant soxna Bintu di ko wax ne ko na dal ak jàmm di ko siyaarati waa gox bi yëpp di leen xam ne maître Madické Niang du ñooñu te Madické du ñooñu te ñooñu tamit du Madické Niang ndax Madické Niang teel bi Serigne Touba la nekk koo xam tim ku yàlla baaxal mu nekk koo xam tim lépp loo xam ne. xam na warteefu doomu aadama xam na da àqu doomu aadama ndax amul fenn fu du dëkk bi surtout nag dëkk bi surtout nag ci ndaw yi ak ni mu bàyyi xel tamit ñi nga xam tamit nu lay mooy soxna yi tey ji ne moo tax tey ji fan yëpp ñuy seeti ñi xam tey ñooy mbootaay yi di leen collecté ci ci li nga xam te moom mooy war wàllum kàddante waa Kër Madické si kàddu Ndiogou Sall dalal seen xel gis ni kat andi bi moom day wéy te tey rafet di daal xàccandoo di dóorandoo tàmbalee ko si parrainage bi ñu jub ne nag am nañu yaakaar ñoom it si waa Touba Aliya. ñu fal ko mu génn premier tour li ñu waxanteewu moom mu jëf ko ñu nit ñu gën a topp ci ginnaawam ndaxte li fi jaar bari na li ñu naxit bari na mais nag du ñëpp ñooy naxaate dañoo am ci moom confiance loolu mu gën a yokk ñun jigéen ñi Touba ñu takku ba mu dëgër ngir jàppale ko. ba tey ndaw yii di jàppale maître Madické Niang yëkkati nañu kàddu wax ci wàllu parrainage bi nekkat ñoom seen objectif dépassé nañ ko loolu te dañoo bëgg sax nag weesuwaat ko ba mu gën a sori nee nañu nag seen ëmm daal mooy élection yi ñoom jamono ji pare nañu. yàlla dogal na ne liñ soxla woon ci parrainage doublé nañ ko mais dañ ko bëgg a triple parce que nag taux biñ soxla Touba duñu bëggul Touba kenn man ñu fi moo tax boobu ba léegi tooguñu. mais ñëw gi ñëw fii du caage ne suñuy parrainage dafa matul parce que dañ ko triple kon ñu ngi sant yàlla bu baax ci ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk yi dëkk Touba macha allah jox nañ ñu bopp te pare nañ pour ànd ak ñun liggéey bi te wax dëgg yàlla suñuy nit lañ te président nag ku neex a jàppale la ndax tiitaroowut fenn fudu Touba koo xam ne nag tiitaroowut fenn fudu Touba te nee na lu mën a am gañe Touba moo ko ko gënal ndar gëm dëkk sax tuubaa waa Touba ñoo gën a sentir seen bopp ci président Madické kon wax dëgg yàlla kon ñun waruñu lu dul ñun ndaw ñépp ñu tënku booloo jàppale président Madické diirub bi mu jëlee yoonu boppam fesal ni kat day nekk candidat ci élection présidentielle yi Madické Niang ak ay ñoñam ci biir Touba tooguñu saa su nekk ñu ngi amal ay doxu nemmeeku ci bépp fan di dem seeti kilifa diine yi ak responsable yi nekkoon parti démocratique sénégalais ak yeneen parti yi ngir nag massifier seen kuréel gi waajal ngir dem ci élection présidentielle yi am février 2019